jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Pikine nag ñëw fi seet si kenn koo xamante ni euh, yàgg ngeen ko gis euh, ci wetu mbëru Pikine yi bu Ama Baldé di bëre nga koy gis bu soq di bëre nga koy gis bu ñaŋ di bëre nga koy gis muy Jibi Yaata Jibi nag tëdd tëdd boo xamante ni tëdd bu yàgg la feebar gis ngeen fan yii yëpp suñuy confrères ñu ngi fiy ñëw di ko jël. di ko dégtal mbokk internet yi ba ngeen di gis kii di Cheikhou Kouyaté somme bu bari bi nga xamante ni jël na ko ngir dimbalee ko xale bi waaye nag vraiment dañoo ñëw pour ay mbokkam mais mënuñu ñëw pour gis ko ndax vraiment ku ci nekk wane nañ ko te it ay eh, image yi mu ngi bëgg a bari te it euh, bëgg nañ vraiment euh, ku ci nekk rek nu mu ci war a jàppee mu jàppee ko noonu waaye am na ci ñoo xamante ne ñu ngi ciy jàpp. gannaaw loolu nag comme bu ñëwee ci kër gi dañuy seet ñi nga xamante ne ñooy ay magam xool ñi nga xamante ne ñooy ay fameem euh, waxtaan ak ñoom nan lañ ko gisee euh, somme bi fu mu toll ba xam nit ñi ñu ngi ciy jàpp rawatina mbëru làmb yi fan lañ ci toll su ko defee jibi moom xam naa ne dañu di ngeen ñu koy jéggal rek duñ leen ko mën a wan waaye dinañ dugg ci biir xool mbokk yi nga xamante ne ñu ngi fi kii nag boo ko gisee moom symbole la Pikine lépp lu waaye xew la mu ngi fi muy Pape Sarr Pape moom xam ngeen ko kenn du ko présenté ci réew mi lépp loo xamante ni doomu pikin mu ngi ci rek Pape Sarr da ngeen ko ciy gis drapeau pikin rek moo ko tax a jóg Fall maa lay ziar bu baax sama waa ji. waaw maa ngi dellu ziar. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa wasaare mais nañ ci biir. ay ca ñu dugg ci biir. Fall maa ngi leen di ziar de. jëriñ naka mu yéen am tawfeex sant bu baax waaw Fall naka la yéen a am jàmm. jaajëf. Gamba maa naka tey nag. lépp jaam sant bu baax. man la Ibrahima Sarr sama tur dëggantaan ñu gën ma xam ci liilu. waaw may frère jibi jibi am ñoo bokk ndey baay moo topp ci man waaw. waaw bëgg nañ ci biir waxtaan ci lu bëree bëree bëri su ko defee ñu dugg ci biir gën a mën a yaatal waxtaan bi. waaw dat soog fii ñu ngi dat euh, mbokk yi kon niñ leen ko waxee woon sànq ci biti rek ñu ngi nii ci buntu place bi wala ci biir place bi. muy des sop des sob nag euh, boo ko déggee xam naa ni Pape Sarr boo ko gisee yu yees yi mu sol bërki démb ci euh, point de presse bu booy Niang bi nga xam ni vraiment gën ay Pikine am nañ ci bërëb yoo xamante ne bu ñu fa demee dañ fay sañse lu rafet. macha allah mais ginnaaw loolu dinañ waxtaan ki nga xamante ni magu jibi la ñoom ñaar ñu bokk ndey ak baay mu ne moo topp ci moom ñu waxtaan ci lu bëree bëri Pape Sarr nga xamante ni doomu Pikine la lépp lu waay nekk ci Pikine rek Pape mu ngi ci ànd na ci ak yow kon li ci njëkk dañuy jox mag ji ñu waxtaan ak moom tuuti su ko defee ñu ñëw ci Pape Sarr mbokk yi ñu gën la yaatal euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. delloo siyaar gaynde jàmbaar ji di la masaw coono waaw euh, loolu di nuyu Sénégal monde entier. waaw di leen nuyu ñoom ñëpp leen wax ni gis naa luñ ma envoyé yëpp xaalis baa ngi dugg si wari kii boog Ria Western MoneyGram ak Orange Money lépp lépp jot naa ko. waaw lépp jot naa ko barki Serigne Saliou yàlla mu am seen fay ñoom Sénégal diaspora bi monde entier yàlla na leen yàlla fay lépp maa koy jot loo jox tamit Pape Pape Sarr andi ko fii suñu kër jox ko sama mère léegi léegi dafa doon da doon andil sama mère xaalis man tamit lépp luñ jot kii naa ñoom ñëpp daal jot naa message même sax ñu ñu seen loxo jotul seen ginnaaw woo nañ ma téléphone ñaan te ñaan moo ëpp solo xaalis na xaalis day jeex mm-hmm. waaw. Mm-hmm. gannaaw feebar bi bi ñu waxee euh, am na ci loo xamante ne dese naa leer ñu bari parce que ne nañ mois de décembre bi. ci la ji bi war a dem bu demul dina toogaat ba décembre deux mille vingt et lay doog mën a génnaat loolu mun nga ñu ko leeral. voilà xaar ma leeral ko foofu point boobu waxuñu ne ji bi xaalis bi bu matee wala bu matul décembre vingt deux mille vingt bi lay dem. tubaab bi boo xoolee kii bi facture bi facture bi mu ngi ci Wally Seck facture bi si suuf dañu fa jox délé délai bi 31 décembre 2020 lay yem bu fa dépassé tax xaalis bi matul som bu ñu laaj dañ ñuy joxaat rendez-vous te rendez bi mun na ñëw d'ici 4 ans 3 ans ba 5 ans parce que ba jibi defee hôpital 19 jours lañ demandé foofu gars yi ñu ñuy xaarloo sama mag boo xam ne Bagri Sarr maa topp ci moom. moo nekk foofu pari boobu ba léegi moom ñoo bañ avant ñu kaa médiatiser moom moo ci mus a taxaw muy Bakary ñoo bokk ndey ak baay lépp muy garab yaag lépp chaque jour huit mille cent bañ wàññil ñu ko sept mille cent la fa nekk si zéro quatre yi Bakary Sarr mag coppa moo koy doon jënd bañ bañ ko médiatiser bañ koy soog a médiatiser nii gars ne ci deux mille deux ci kii corona bi gars ne jàngoro boo ko weeru du faju boo yëpp jóg boole lu lépp luñ mën ak luñ mënul ba ci das mi mooy ci bigit bii ñu nekk moom dafa defoon tamit benn collecte benn fond joxe numéro am booy ñoom Baye Sall Dia Pape Diagne Demba Jama Pape Sarr mi moom léegi da sama doom baay la moom dafa mel ni ñoo bokku ndey ak baay Mortala du ñu ngaaga Zoro Ondu la Fou Latif ñoom ñëpp daal ñoom laa xam ni mobile moom maa ngi ñëw ci moom mobile 2. mobile 2 maa ngi ñëw ci moom. barki Serigne Saliou daf ma woo barki dem ba bañ ne 5 millions ci des daf ma woo ne ma yalmin ba xone ko naam mu ne ma kaañ jaay oto bi Ford bi. kaañ koy jaay dugal ko sa estati ma ne ko mukk doo ma gën a gore yow oto bi ñoo ngi la ko may même même pas une semaine nga ne pour ñu jaay ko sénégalais yi. monde entier man wóolu naa leen ñoo ngi may yónnee fu nekk seen xaalis mobile ne ma mun na mat wala mu bañ a mat ma ne buy mat yàllaa xam mais nii nu ko gars yi jàppee nii balaa balaa 31 balaa la 30 sax xaalis bi am naa njort ne dina mat ndax gars yi nuñ ko jàppoo nii façon doomu xaalis bu nekk maa ngi koy jot. mobile ne ma te ñu ko jaay ma ne ko déedéet danaa ne ko yow moom yoroo xolu mbër moog Babacar Balde doomu Zil Balde. ma leen yéen yoroo leen xolu mbër da ngeen di bëre nii rek mais boo xoo leen barki Serigne Saliou mobile bu Grand Yoff mobile 2. léegi-léegi moom soo leen toogee bés kanam mu ngi ñëw dafa war a am fu ñu war a ànd man moom Pape Sarr ak Mortale du ñu ngaaga président supporter AS Pikine ñoom seetaanuñ ma benn yoon. te gis nga Pikine lu muy rëy rëy rëy rëy lu muy rëy rëy gisaguñ benn autorité te ñoom nag buñ toogee seetaan ba benn. nit jóge fee bu duggul pikin ñëw ne cas booy bi yóbbu loxo te ñoom seen loxo dugg ci non dina ñaaw torop billaay wallaay wa taalaay. somme bi ngeen war a collecté ñaata la war a toll ci xaalis. 5 millions lañ dabaar bërki dem 5 millions moo des parce que Cheikh Kouyaté suñu capitaine ñun Cheikh Kouyaté capitaine équipe nationale man mooy sama capitaine moom laa def sama photo profil WhatsApp. yëdal Cheikh Kouyaté moom seul moom ñu fekk ci feebar bi te 7 millions 700 yi mu ma jox nii gars ñoo ngi ciy soog avant 7 millions 500 am na lu ko jiitu. moom Cheikh Kouyaté barki Serigne Sall ba mu ko xamee période corona bi période corona bi la ko xam boobu ba léegi loxo ma ngi dugg ci kër gi chaque weer ration complet plus enveloppe enveloppe 400000 500000 premier jour ba may soog a woo téléphone marché Pikine Casa la woon. bii nii passé man nekk stade mu woo ma ma gis plus 44 indicatif Angleterre mu ne man la Cheikh Kouyaté ñu waxtaan mu ne boo demee kër ga woo ma ma ñëw kër ga tombeeg sama mère na ma pigiir yi suba lay jeex tam ñoo ngi wax téléphone ma dama dugg si rek sama yaay ma pigiir suba lay jeex bee boo après nga ñëw ma jox la nga demaat jëndi suba. Cheikh Kouyaté na ma pigiir yi nga doon wax kon ci affaire yooyu fu mu toll ma ne ko non am na lu jeex nii suba laay dem jëndi mu ne ma xaar maa coupé dina am ku la woo Cheikh copain moo ma woo téléphone ñëw fi maa ko guidé mu ñëw fi 800000 la fi wàccee ne ma lii pour garab kese la cent 800000 pour piqûre Lovanex depuis boobu ba léegi weer bi mu ñëwaat andi ration booy ñooy su bi gaaree booy ñoo koy wàccee tabaski xar xar bu ñu rey sama gaale te ñàkkuñu xar de mais Cheikh Kouyaté at. at lu muy àndal at enveloppe boobu ba li ba nii may wax ak yow bërki démb anniversaire am la 21 décembre appel vidéo la ma man maa ko waroon woo bésdeem ndax def naa ko estat mais moom woo ma paasaat ko jibi paasaat ko sama mère tey saa lu gën a neex Sénégal ñëpp ñoo koy ñaanal ñëpp a koy ñaanal ñu ko xam ak ñu ko xamul ba waa dañ may woo ne ma kooku buum taay sax ñoo ngi koy ñaanal bu baax ñun nag yoruñu luñ ko jox mais yor nañ suñu kurus di ko ñaanal. moo tax bañ déggante bëri ma ne ko yelmin mu ne ma naam ma ne ko yaay ñaanal sa bopp soo gis kuy def lu baax di am lu bon. barki Serigne Saliou. mais dégg naa ci am na ci ñoo xamante ne sax vraiment seen loxo jotul seen ginnaaw trois cent cinquante francs sax dégg naa encaissé. man maa ko wax démb kay kooku noonu ba ma envoyé trois cent cinquante francs nuñ koy waxee ci olof. nuñ koy waxee ci olof sax juróom-ñaar fukk la ma envoyé amaatul crédit sax bu ma woowee maa ko woo téléphone mu taaw naan ma kii ma ne ko déglu ma yow ma lay ñaanal xam naa ni yow ñu yónnee cent mille at cinquante mille at vingt mille at dix mille at cinq mille ba cinq cent yéen a bokk loolu ñoo de mais ñooñu dañ may yónnee woo ma ma ñaanal remercier leen bii man maa la woo te yow instant yi enregistré naa sa numéro. barki Serigne Saliou maag yow dinañ jëflante te kooku man du ma ko fàtte. maa ngi numéro ëllëg jibi bu demee sax ba yàlla def lu muy def man ëllëg bu ma man bu ma téewee kooku man dinaa ko teral ba mu xam ko barki Serigne Saliou na geste bu mu def du ma touché teraanga nag kenn du ko delloo mais dama ko naroon envoyé waat ba dugal ko kër mais dama ne non non comme que lii la def day am ci yool bi. barki Serigne Saliou. billaay wallaay. jërëjëf euh, dina ñëw ci Pape waaye gis nga àdduna saa su ne rek muy indi njàngat saa su ne rek àdduna di gën di wane boppam saa su ne rek ñuy gën a xamaat kan mooy suñu borom ndax nit nekk na ci réew mi tëdd ci ay milliards te mënul jëf dara lu jëm ci mbiru yàlla suñu borom xoolal ki yëkkati cinquante francs néew na ci ñi koy dégg waaye niiwut ci yàlla. ndax yàlla suñu borom yéene rek lay fay ak jëf ndax yéene boobu mu am tey yàlla na ko suñu borom kàttanal dooleel ko ba mu doon bokk ci milliardaires yi parce que kooku xamuñu ko waaye vraiment bu bu bu bu amee rek ñëpp dinañ am. mu bokk bokk nañ ci leneen loo xamante ne dañ ko lancé appel muy waa pikin autorité pikin yi am na loo xamante ni ñaaw na ci déggin waxuma la nit di ko gis waaye nag junj moom doy na boroom xel. lii rek la nit mënal moroomu nitam ndeke nit kenn du ko lekk ndeke nit da koy jariñoo dangay am soxla rek gis ko mu taxaw ci say soxla lii nag jar na ku nekk ci àdduna mu bàyyi ci xel muy man muy Pape Sarr muy liiru muy keneen ak keneen ak keneen ginnaaw ci àdduna yaa ngi fiy dund rek lu ne war na laa mën a dab. teyit nag euh, yàlla suñu borom rek moom mooy suturaal nit yàlla nañu yàlla dolli sutura ba lii nga xamante ni àdduna bi yëpp ñu ngi koy combat yàlla nañu ci yàlla may ndam jibi yàlla fëgg boppam ba mu dellu si waat loo ci bëggoon sànni. waaw di delluwaat di di gërëmaat. gërëmaat waa diaspora bi. ñu nekk Europe surtout waa Europe Italie. Suisse Russie France surtout waa France ñoom dañuy def collecte foofu fond. xam nga gars yi loolu yëpp jot nañ ci. mooy loolu ñoom ñoo ngi dajale foofu waa États-Unis xam nga waa New York ñoom dañoo bañ sax nii ma tudd seen tur. barki Serigne Saliou yónnee ba may jóg léegi léegi. waaw barki Serigne Saliou enveloppe un million la ma yónnee noonu. un million barki sëriñ Saliou te ay jigéen lañ. Debbo Gaye moo ngi ci biir. bo beneen femme bi dafa ne bu ma tudd turam bu ma ko wax. barki Serigne Saliou yàlla yàlla moo leen di fay jot naa ci. ak waa diaspora bi nii ñuy dajale seen xaalis yu ko yónnee loolu yëpp mu ngi yegg si barki Serigne Saliou mu ngi yegg si. di leen delluwaa di leen ñaanal rek loo leen mën ren yàlla ngeen mën lu ko ëpp déwén. moo tax rafet nañ njort balaa samdi wala dimas incha allah xaalis bi dina mat. incha allah billaay mhm. billaahi yàlla mu am seen fay daal yàlla leen yàlla fay. du ma ñaanal waa Pikine rek wala waa Sénégal kese ñëpp parce que doomu aadama yi fu nekk lañ may yónnee seen xaalis Orange Money ba nu may wax ak yow mu ngi dugg. Western Ria MoneyGram lépp mu ngi ñëw. billaay wallaay wataalaay aw ma seen fay yàlla leen yàlla fay. billaay wallaay wataala di delluwaat di ñaanal capitaine. Cheikh Kouyaté encore une fois ñun du ñu taay di ko ñaanal barki Serigne Saliou benn jour boobu laa am équipe nationale. muy Cheikh Kouyaté mooy sama capitaine à vie kii nii toog moom moom mooy jouram moo magam ñoom di ñun man déggoo à vie laa mooy sama capitaine Cheikh Kouyaté moom yàlla moo yàlla moo koy fay bàyyi nañ ko ak yàlla barki Serigne Saliou moom mooy ñaanal boppam nu ma ko wax moom mooy ñaanal boppam yalmin la billaahi wallaahi wa taalaahi te kenn du def lu baax ba pare di am lu bon ak copain am Cheikh ndaamali di delluwaat di bëggewaat mobile mobile 2. Mm-hmm. waaw mobile 2 soq ama ëmma seen la fu waaw gaa di leen bëggewaat di woo di delluwaat di waxaat autorité Pikine yi mm-hmm. duñ taa di leen déglu ndax ñun ñun ñoo leen fi teg mm-hmm. suñu maire yi suñu maire yi ñun ñoo leen fi teg di delluwaat di waxaat Marème fay Sall kii bi yónnee nañ ko fondation Servir Sénégal papier bi nañ ko dugal nañ ko foofu ñoom état bi ñoom buñ ñëwoon rek taxaw wallaahi jibi du fi def vingt quatre heures mukk jibi du fi def vingt quatre heures mais nag heureusement ba yàlla am na beneen yàpp bu dul géej gi duñ leen sànni xeer duñ leen wax dara mais doomu aadama yi seetaanuñ ñu ci kàttanu yàlla cinq millions yi dina mat ba ëppal jibi ñu jël ko yóbbu ko mais état dañ seetaan te du yoon ñoom état nii ñu nekk ci kaw yëguñu ko de xam naa ne dalu leen mais seen ndaw yuñ yuñ yuñ fi yuñ fi yabal maire yaag xam nga député yaag ministre yi ñoom yëg nañ ko yëg nañ ko. jërëjëf jërëjëf xol tooy na xool fees na waaye Cheikhou Kouyaté l'international li mu def euh, defal na ko réewu Sénégal waaye nag am na ñoo xam ne am da leen a jomm parce que boo amee rek changé. am am dalaa jomm mais moom wane na ni am am bi jomm ko yàlla na yàlla yokk xéwalam lépp lu mu dugg yàlla na ko ci suñu borom defal ndam parce que képp koo xamante ni doomu réewu Sénégal nga ak foo mën a nekk rek xolam sedd na ci gest bi nga xamante ni def na ko yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ci ginnaaw ba tey bu leen des ginnaaw benn yoon yëkkati leen seen teraanga ñaqal ci te yàlla tax léegi da ngay wax numéro bi nga xamante ni ku la ci contacter mën na la jot. waaw parce que gars yi man xam nga gars yi liilu lañ may woowee mais sama tur bu nekk sama carte d'identité Ibrahima Sarr la. waaw. Mm. at sama numéro. Mm. muy 77. 168. 76 12. 77 168 76 12. di wax gars yi ni man sama numéro bii. moom moom la gaa yëpp yor ba diaspora bi ñëpp ku ci yónnee xaalis ci sama numéro nga ko yónnee waa ilaa wala numéro Pape Sarr 78 bi. Pape Sarr ay ca wax ma sa numéro bi. waaw suma numéro bi 78 euh, la. 358. 42. 83. mooy suma numéro. waaw jërëjëf. yàlla na yàlla defal jàmm yàlla defal leen xéwal ñoon lañ leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.